waa ñoo lànk wër nañ képp koo xam ne sénégalais yi jox nañ la bopp muy ci politique bi dem nañu seeti parti yi muy ci social bi dem nañu seeti syndicat yi muy ci économie bi dem nañu seeti ña nga xam ne ñoom ñoo yore économie ñu mel ni defarkatu mburu yi dem nañ seeti ñëpp pour ko ñëpp yëgandoor ko xëy na nag buñ ci jigéen nañ dem seeti sëriñ si danañ seet képp koo xam ne Sénégal jox na la bopp ak waay jàngu bi pour que ñëpp xam ne xeex bi xeexu citoyen la xeex bi xeexu njëriñu askan wi la ndax nguur gi dafa rek ne fokk mu addu leen kalpe nguur gi def ne fokk rek mu jël ci seen poos pour mën a continuer di dund dundam boobu nga xam ne seeraayu dundam bi nga xam ne moo ñu indil lii yëpp xeex bi nag ñaara xol ci ñaari tànk la ñuy doxe tànk bi ci ñëk moy suñu xarit yi ñu jàpp leen ci kasso gi Amadou delsi sank ci benn kayit bu am solo Cour suprême moko wax à chaque fois préfet ne marché bi autorisé wu mako ndax trouble à l'ordre public la wala autorisé wu mako ndax dama amut euh, mënuma ko sécurité def indil sécurité booba préfet wax na loo xam ne ak yoon ndax moom li ko ki ko yilif muy cour suprême nee na ñoom amuñu droit aaye manifester lu dut ñoom dañoo wàññi ne amuñu ay policiers yu ñu mën a sécuriser marche boobu kayit gaa ngi nii lar naññ. loolu wàññi na ne jàpp bi ñu jàpp Guy Marius Sagna Fallou Galass Seck ak usman Sarr tooñ la ak jaay doole moo leen bàyyi ci kaso gi waaye du ci yoon lañ ko teg beneen bi nga xam ne fësal nañ ko tey ci wàllu courant ndax boobu ba léegi dégg nañ ci nguur gi mu ñu jéem a ñu ñu jéem a xaajale sénégalais yi nga xam ne ñoo dëkk ci ak kaw gi ak sénégalais yu dëkk ci taax yi naan déedéet ñi ñu yokk ak sénégalais yi nga xam ne am nañ as ak sénégalais yu amul as tuut ku xam Sénégal xam ne dëkk solidarité la maanaam dimbalante la waaye nag dimbalante day fekk mu commencé ca bopp ba ñoom ña ca kaw yor réew mi ñu jox leen ay oto yu seer jox leen ay xaalis jox leen lu ne pour ñu jiite réew mi. ñoom bu fekkee nangu nañu dimbalante ak ñun wàññi seen dundin gi rek askan bi ne boobaa dina leen mën a dégg waaye defuñu ko lu tax parce que beneen kayit goo xam ne waa Sénégal ñoo ko bind génnee ko ci seen palang bi ñuy woowee yeesal Amadou dem doxant ci xool lan ta wax kayit gi wane ne ne ndëkkate yoo Senelec ñoom sax jamono jiñ naan dañuy yokk dañu waroon a wàññi ñoom dañ ko waxoon ca 2017 ne 2016 ne ndëkk ne bu ñu nee ba 2020 danañu wàññi courant bi ndax bu leen fàttalikoo yi dafa ñëwoon fekkoon fi plan tàkkal ne wéy tàkkal bi baaxut mu indi yeesal yeesalam googu dafa waroon a wàññi courant bi ñoom ñoo ko bind ñoo ko wax ñoo ko biral ci ay chiffres yu leer nag waaye defuñu ko tey ñu bëgguñu dañuy yokk kon yokk googu am na leneen lu ci rax te sénégalais yi waruñu ko nangu. beneen bi ci des ci seen kayit gi ba tey kayit gi nee na sénégalais ko bind na. adduna bi yëpp maa fi gën a seer courant Sénégal mooy bu xonq bi yeneen yi ñoo nekk nii yeneen dëkk yi mooy bu xonq ñoom Sénégal seen bopp nee nañ ñoom li ñuy defaree courant moo gën a seer ci àdduna bi ndax seen courant dafa seer waaye bu dee sa moo gën a seer ci adduna bi ci askan bu mel ni bu senegal nga xam ne gis ngeen mbay mi nu mu demee gis ngeen njàng meeg njàngale mi nu mu sooxee gis ngeen am fi liggéey nu mu jafee ba xale yi di jël géej gi nga ne leen léegi da leen bëgg a yokkalaat courant boobu waaye waaye li ñàkk yërmande la waaye buñ ko nangoo buñ ko nangoo waaye seen kayit gi ba tey nee nañu ñoom seen bopp nee nañu ndekete yoo courant bi sax li muy seer ndekete perte yi ñuy perte la ndax xëy na seen installation yu màgget waaye xëy na aussi ak yenn gi lenn gi ci càcc gi ne nañ càcc gi ak perte yi ñuy perte ci yoon bi ñuy tra bu ñuy bu ñuy tukkiloo courant bi moom moo waral ndëkkate yoo courant bi seer donc ñoom kañ bu ñuy wàññi bu ñu bëggee wàññi xam nañ fi ñu jëm bu ñu bëggee yokk it xam nañ fi jëm lu ñu bëgg a seet ci poste Sénégal te seetuñ ñoom ci seen doxalin lu mun a wàññi courant bi am nañ fu ñu mun a xool ci doxalinu Senelec xooluñu ko parce que boo xoolee seen même rapport bi nee na leen at yi ci ginnaaw Senelec bu fekkoon ay 30 milliards la doon fay tey jii dem na ba ay 130 milliards. ci lu ëpp ay ay milliards yu baree baree bare mi ngi ni ñu ngi ni ñoom ñoo ko bind de ñoo ko bind wax ko ne bu ñu doon fay junni suñu agence yi pour ñu liggéey tey ñu ngi leen di fay million ci ci ci ci misaal ñoom ñoo ko wax donc loolu kayit yi yëpp nag dafay wane ne xeex bi nga xam ne noo lànk mi ngi koy xeex xeexu ko rek ngir dafa bugg nekk ci opposition xeex bi noo lànk di xeex xeexu ko ngir rek dañu bëgg a def rek bëgg a yee fitna wala bëgg a yëngatu déedéet yërmande bi ñu am ci askan wi la bëgg nguur gi am ko ci askan wi nguur gi nga xam ne dundam mi ngi ñu ngi nekk ci ay oto yuy milliards am ay institution yoo xam ne yu dul jeex li ñuy dundee ñoom wuñ ko wàññi ba pare bugg sénégalais yi di leen ko di leen ko financer rek di leen ko financer parce que yokk bi li muy li mu làq ci biir mooy ne dañu soxla xaalis kese bugg askan wi financer leen moo waral nag. comme ni ñu koy waxee saa su ne kalpe lu mu jaral addu kalpe bu ko jaralee borom kalpe kalpe du dem daawala géy mais moo koy nettali toujours kalpe lu mu jaral addu kalpe bu ko jaralee borom kalpe kalpe du dem suñu doxu ñaxtu ajjuma bii nga xam ne dina am fële ca kawlak am ci Kaffrine am ci mbuur am ci Kolda am ci fii ci Ndakaaru ah am ca Jurbel am ca Thiès doxu ñaxtu boobu doxu jàmm la pour que sénégalais yëpp génn ci jàmm préfet bi dina ko autoriser ndax amul benn loo xam ne fan na fu mu ko war a teg pour aaye ko nit ñëpp génn ci jàmm génn rek waña ne d'accorduñ ci courant bu seer bi